sant Cheikh Mamadou Fadel ni ko boole ci Serigne Touba di ñaan nag yàlla taas leen seen barke ci yàlla fayal ñu ko nee na dellu nag di sant Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo tax ñu daje fii tey di ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem ci yàlla fayal ñu ko di ñaanal itam Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général de Mouride yàlla yàggal ko fi loolu ci wéral ko ba li muy liggéeyal ak li Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Bachir ak lislaam bépp ak réew mépp ak àdduna bi mu àddane ko ci sago te nu fekke ko ci ànd koog moom dee na dellu nag di nuyu suñu doomi sëriñ ju tedd jii muy Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir lii mu def rek nee na xam na ne lii mu def rek. wane na tolluwaayam wane na tolluwaayam. kon ñu koy sant bu baax. kon nee na ñu ngi koy sant bu baax. di ko gërëm bu baax. di ko ziyaara bu baax. kilifaam yu baax yi. ci li tax kilifaam yu baax yi. ku fi ñëw gën koo doyloo. ku fi ñëw gën koo doyloo. moom la ne jikko jooju ci moom la. nee na loolu nag wane na jikko ji lii mu def léegi rek wane na ko. kon nag nee ñu ngi koy nuyu. di nuyu nag mbooloo mi nga xam ne tedd mi ñu fekk fii góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ñu bokk nga xam ne bis bi bisu lislaam bépp la bisu diine yépp la bisu réew mépp la nee na def na ne Cheikh Abdoul Khadir li nga xam ne dégg nañ ko ñu wax ko ci waxtaankat yi doy na sëkk daraja ji nga ëndaale. koo xam ne daraja ji nga ëndaale. dégg nañ ko ba tàyyi. dégg nañ ko ba tàyyi. la ko Serigne Touba wax. la mu ca wax maam Thierno. ca loola di dox ba léegi. ba léegi. kon bisam ñëpp ci sawar. képp lu bëgg lu baax. wala nga am dara ci diine. am ci tomb tomb bu leer. am ci tomb bu da nga ko bëgg. da nga ko bëgg. da nga ci sawar. da nga ci am yéene. da nga ci ndax nag ñoom ñi yàqun dara ci loola lu dul yokk ko saytu ko sàmm ko gën koo leeral kon nag sëriñ bi yal na la yàlla dimbale yal na nu yàlla lafal cat yal na yàlla guddal sa fan ca wéral la defal na ko ñun ñëpp ci ay xéewal ak mucc ci barke borom Tuubaa barke Cheikh Abdou Khadre moom moom nga xam ne dama ne woon ci moom ku am dara ci tombub leer bëgg dara ci mbaax wala nga bëgg dara ci baax wala nga am dara ci mbaax soo ko gisee soo ko gisee moom Cheikh Abdoul Khadir da ko sopp bu ngeen jëflantee bu ngeen jëflantee da nga ko naw da nga ko naw bu la ñaanalee bu la ñaanalee da nga ko gëm loolu nag yàlla ko defal te ne yàlla ba wax ne wa ma saxin naa bi ma alim na buñ ci nekkoon kon nag buñ ci nekkoon xawma li ñuy wax lu mu doon xawma li ñuy wax lu mu dama xam ne lu mu baax la rek bi du nekk ci lu lu doon ndax sëriñ bi dañu nekk ci lu lu lu duyoog loolu li ko tax a génn ci a mbooloo mii jotaay ci waxtu bi ci waxtu bii ci bisu sëriñ Abdou Khadre rek ni mu xatee ak la koy xaar ci biir ak li koy xaar ci biti kon nag xam na ne li ñu fi wax lépp aw yiw la kon kaddu gii mu ñuy jox baax a tax ak mën a yaatal ak man na rafetal waaye jëru jëru ko woon waaye jëru ko woon ndax ñun xamul lu ñuy wax waaye xam sañ nañoo am ak bëgg sañ sañ nañoo am ak cofeel sañ nañoo am it ak coloré ca loola lépp nag la ñuy dox di feddli si tey feddi ko feddli ci yow mii ak mbokkam yu tedd yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi ak taalibe mi tedd yi ak wëllëri yëpp kon sëriñ bi gënuñoo bëgguñoo guddal ndax xam naa li liñ fi wax ak liñ fi nar wax ak liñ fi nar a wax mooy gën a rafet li may wax mooy gën a rafet li may wax mooy a jotal mooy gën a jotal mooy gën a mat mooy gën a mat da ngaa baax rek da ngaa baax rek jox ñu kàddu gii jox ñu kàddu gi waaye daanaka jëru ko kon nag ñu ngi ñaan nga ñaanal mbooloo mi ñu fekk ko ay déwén yi déwén yu bëree bëri ci ànd ku wér ak mucc ak yokk